di moom Modou Laye Modou Laye nekkee si Comico Bambilor si ay euh, entreprise am bi tudd ahlul baytul couture doon laayal doon soppay Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam bon kon euh, sama caméraman bu ñaawal bi da ngay ñëw ànd ak man ba si biir ñu jéem a xool Modou lan lay liggéey ak lu muy liggéey bisimilah

bon tay gan buñu am euh modou la tuddu modou nek un tailleur bi nga xamné pétri de talent la mëna wax babakar sama cameraman bi dama bëgg jalan jëlal mu lima sol li mo mo moko defal néna ma émission bala ngay ñëw na la solal bu ñëpp sénégal yëpp xamni ma la solal diko nan nak di nga xamné gor goko sékkal kan may mo ah netali kat ci gëmënu borom la daxé bismillah kan may modou señ bi bisimilah rahmaani rahim ma sant yàlla di julli si yonent bi di sant Baye Laye di sant Baye Laye nuyu moom Baye Abdoulaye yal na fi yàgg te wér. amiin fi yàgg te wér yal na fi yàgg te ak boolam ak ak ak lu béyti. suul yëpp yal na fi yàgg te wér yàlla defal jàmm. Euh, kii Modou Modou mooy man daal kii la jeune jeune laa rek jeune laa. waaw bu bàyyi ko Casamance ñoo fi daan daan daan sama doole daal. waaw moy mooy mu don doon teer fii ko fii waaw di ñëw rek waaw. jërëjëf Modou nee na kat jeune la bi nga xamné ne Casamance lu jóge ñëw fi di euh, di ñëw di daan dooleem lii mooy Jugal Fayette c'est ça la beauté de cette émission moy dalay fekk ba sa bërëb bi ngay liggéeyee laaj la fa ay question nga xamal sénégalais yépp fi nga jaar nga xamal sénégalais yépp lan moo nekk euh njëriñu liggéey bi en quelque sorte. bon moo dañu ñëw dugg si suñu ay question ba pare nga. bisimilah tey du yomb de. moo euh, fan la idée doon euh, tailleur jóge. Euh, mooy mooy gone boobu may may jàng di am di am atu 15 ans daal. quinze ans di jàng daal di jàng. Mhm. fa la bay jàng. Mhm. ma man man daal. jàng bi daal moo continué quoi xa xa ma xamul wuti wuti lu muy laa bay jàng mhm. sol sol samay samay samay daal di di di wër si place yi dëgg la xool fa laay liggéey moo dem ñu naan indi indi indi sa sa sa sa sa pap wala wala sa yàpp mhm. Ah, man naa leen sama sama pap moom instant bëggul daal ma ma ma ma bay jàng daal. waaw man daal man daal jàng moom mooy doon. man daal nii kii daal laa bëgg duggee en 2007. ok kon yow en fait euh, amour bi ba ngay jàng koo am. kon moo nekkoon na élève. 2007 euh, nga am amouru euh, don tailleur 2007 nga doon wër euh, place yi di jéem a lan nga mën am wala lan nga mën a jàng ba mu mën a maîtriser li nga xam ne tailleur ah loolu lu am solo la maanaam njëlbeen bi tàmbali bi nga doon tàmbali métier bi naka la naka la meloon si yow naka nga ko doon dundee quoi ak say patron yooyu. non début bi mu woon dund mu woon dund moom xaw xawoon na xawoon na métti lool xaw na métti nii rek. <laughs> waaw xam nga xam nga moom lu lu métti moom bu gars yi xamee ni kii moom ah, waaw. defaat moom da xawoon na métti moom. waaw parce que parents yi xam nga parents yi. Mm-hmm. parents yi soo soo da ñu naan ñu naan non non. waaw xam nga waaw fa fa laa tàmbale di di di di def di. Mm-hmm. teel a xëy xam nga teel a xëy dem quoi su ma su ma gars yi gis ñu naan ah kii moom xam naa xam naa daa daa daa génn quoi départ bi dama def naa si si ñaw euh, benn weer sama sama sama sama sama sama sama papu doo ko xam quoi waaw doo ko xam maanaam si famille moom kenn kenn xamuloo na man damay ñaw maa maa jékki-jékki rek gaay gaay gis moo rek mooy ñaw kenn kenn kenn xamu ko woon ah way mooy loolu loolu lañ tuddee passion nee euh, na ñaw na jang na métier bi 1 mois bala parents yi nga xamné dañ ko doon bañal euh, liggéey bobu non diko ko mu doon ki nga xamné amon na jom yéen sédé mu doon ki nga xamné amon na amour si liggéey bi nga xamné euh mom la exercer actuellement doon ki nga xamné yag na sé def xam-xamam alalam ak leppam kon donc euh ndanan la parce que 2007 ba légui comme nima len ko waxé ko ko ko seug ci machine mom machallah euh lu rafet da ngay def voilà mo say patron naka nga doon dund ak ñom ba nga doon jang métier sama parent mom patron patron yi ok sam sam patron euh sama sama premier patron mom mom baxone trop baxone baxone kon mom nice quoi mom nice mom mom mom mom na ma ko won quoi bobu ñew ki ki lon quoi ñew ñew tubaab la woon quoi ma du ñëw olof. ah waaw waaw ñëw ñëw tubaab laa fa am am am foo weer. Mhm. léegi ma ma gis sam sam sam sam benn grand moo xam ne bu baax. Mhm. jim. Mhm. moom di di ko di ko di ko di ko nuyu nag. waaw di ko nuyu moo moo moo moo naan ma euh, bàyyil fii parce que kii moo du ñëw yore yore olof. ka ka ka ma booleel ak keneen kebe. léegi foo foo laa jógee place boobu dem. si place boobu nag place place bu ma jógee dama am foo weer beneen place bi am am foo at. <laughs> waaw sama sama sama sama sama papa fa la fa la fa la xamee ni man da da damay damay ñaaw quoi. waaw kooku moom ah xam nga métier moom boo koy jàng moom <laughs> moom lépp moom mënoon neex. moom ñëpp ñëpp mu mënuñu bokk xel ñëpp mënuñu bokk ñi daal. kooku moom xawoon xawoon xawoon na. compliqué ah. compliqué. compliqué hmm. place c'est toujours difficile avec les patrons. parce que si tu li wax maintenant na. maintenant, na nga dem euh, am ci atelier. Tu hmm. as bëgg métier en quelque sorte. Euh, des fois nga tu comprendre comme c'est ay am ñi nga xamné tay dañ lay maltraité dañ lay malmené utiliser la ba ñom euh, buñu doyalé doyalee rek ne la acca sëñ mën nga dem quoi libéré na la xam-xam do ko am parce que traumatisme mënoo ko ak lén nakar coono tiis mënoo ko ak lén encore une fois. kon donc ñuy ñaax ñi nga xamné ne patron yi ñu gëna a ñu gëna am yermane ci seen ay ouvrier ñu gëna am yermane ci seen si seen ay liggéey kii euh, ñi ñuy liggéey en quelque sorte euh, Modou est-ce que euh, respecter Wanda, c'est say patron autant est-ce que Modou nekkoon na ki nga xamné euh, à chaque fois que euh, na ki nga xamné patron bi ko dum gërëm ko xamné ne na ay patron lolo nekk patron de mhm. la foofu du di ma fekk. ñoom chaque chaque ñoom man man seen seen banneex lay dox. seen banneex la maanaam métier bi man gëm-gëm laa laa ci demoon laa ci am dafa amour man xaalis. man xam-xam laa noo wër. xam-xam laa noo wër. moo tax moo tax lu lu lu ma sant daal. fu laay def. waaw li ma sant fu laay def. waaw kii la ci gëstu na gëstu na bu baax. doon doon gëstu nag. waaw. Ah, loolu dégg ngeen ko ah? nee na xaalis bi soxlawul soxalu ko woon. a ah, moo yow est-ce que doo ma doo ma transmettre ce virus bi. Euh. dama bëgg dërëm de. ma <laughs> maa loolu. man dërëm daf may fay de daf may euh. fay daf may faj waaw mais noonu la quoi. maanaam juste voilà juste juste benn parenthèse xaw a indi comédie tuuti quoi. Euh. mais lu am solo la. Mhm. mooy nit boo tollee si jàng bul jiital xaalis. Mhm. jiitalal sa sa sa maanaam xam-xam bi ngay wut. Mhm. jiitalal euh, yoon bi maanaam respecté aussi ñi nga xam ne ñoo lay jàngal parce que sans respect boobu na nga leen jox yaakaar naa kon xam-xam ba doo ko tal sans amour si li ngay def yaakaar naa li ngay jàng du mës a mokk te loolu doon na taalibeem doo mës a doon sëriñam doon euh, li nga xam ne aussi dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax euh, est-ce que jamono yi nga nekkee woon si seen atelier yooyu na nga doon jàngee métier ba xam amoo woon nag problème ak apprenti yu fa nekkoon apprenti man man ak man ak apprenti wala ab. yow ak apprenti waaw ba xam daanoo leen am problème. man ak apprenti jalousie du si daan am wala man booy mooy nekk si place man kenn la mooy sama sama sama patron boobu. ku lay wax noonu. waaw mhm. ah, parce que nekkoon naa foofu. Mhm. ne nekkoon naa amee ak génn naa dem dem ci beneen place. mu mu mu génne ma génne ma place bi quoi. mais si place bu fu ma newoon euh man man kenn ma ma fa nekkoon. pour pour pour la moment quoi mu mu amaat trois ñu mais ñom ñom ñëpp kenn kenn kenn yagu fa. kenn yagu fa parce que patron nu nu meloon quoi nu meloon trop. parce que patron bi day day day té té mu mu mu mën a ki kii. mu xuloo ki gars yi dem ba loolu mu so kii soo quoi mu soof leen ñëpp ñëpp génn dem léegi man man nag maa fa muñ nag ak ak ak ak ak ak weer di muñ mais mais moom bu mu ñëwee fekk ma ma ma toog ci kaw kaw machine bi après si la ma dax dax dax place bi quoi

te dama sa bopp macha allah loolu mom, aussi muy benen acte bi nga xamni jeune war nañ ko baye xel muy ben affaire bi nga xamni ndaw ñu ñu ko war nañ ko def seen objectif moy lan gëm sa bopp parce que lo gëmul du la mësa fay franchement du la mësa fay kon si lepp lo nek parce que suñu suñu suñu suñu suñu papa ju baax ji Youssou neena na Dakar sa bokay jaay batay faaw nga am ci fulla kon même bu fekke da ngay siré ay dal même su fekke da ngay ñaw yéré ngala da nga si am fulam ci fayra ku la gis na la si ñee te di nga am franchement li nga ci bëgg euh est ce que amone nga opportunité yépp jamono yi ngay liggéey euh ce qui est ce que amone nga opportunité yépp wala di jàng di di di ñaw fi des fois ñu lay jox xaaliss des fois ñu lay ñu lay baye ay ñaw yu bess yu demee nonu ka jamono yi ngay jang métier waaw moy moy mooy jàng ñaw mom jàngoon naa simple ba ba mun simple. Mhm. boobu kii kii mi ngi xew cordonnière. cordonnière waaw cordonnière moom jàngoon naa ko ba mokkal cordonnière di di baatu góor. Mhm. ay daamina yëpp da koy def. Hmm. Ah, mhm. lépp lépp njàng. ba léegi di si si ñaw la ay ay ay saak. ay ay ay kii ay pull. macha allah waaw ñaw lépp am koo ñaw. ah mais man war nga ma ñawal de moom yow looy def ba ñawal. yow yow lay def fi nga ñawal de. non yow yow yow hmm? kaayal yow yow moom hmm? dama la feeku. ah dégg ngeen ah, ah. <laughs> waa Bambilor <laughs> waa Sénégal yéen a dégg nee na du ma laaj dara. kon bo xaar ma dem jënd tisi ñëw. waaw xaar ma dem jënd tisi ñëw ah. kon ah, ah, ah. baax na. Eh, man daal lu lu nugu dañu togu fo rek. waaw hmm. kon baax na. baax na baax na loolu moom baax na amul benn problème. Hmm. waaw eh, mo yow kañ la la. Eh, sa patron. Hmm. Manam. yewi euh. jox la diplôme. mais la carrément mo franchement content na ci yow. lakh nga sama ngeureum ñaanal na la man mi sa patron. diplôme bi mala ko jox. wala lii man maa la ko defal mën nga dem liggéeyal sa bopp maintenant. Euh, sama patron mooy yow deux mille quinze. deux quinze. voilà dama yeewee quoi. Mhm. si la man acte boobu noonu man dama ko doon gisati euh, lu bëri. maanaam nga jàngal nit métier ba ba mu mokk mokkal. nga jënd guro geste bu garaaw la macha allah geste bu baax la geste boo xam ne geste bu noobu la day gën a yee suñu ay culture bi nga xam ne Sénégal fii la ko culture yi nga xam ne Afrique fii la bàyyeekoo nit ki boo ko jàngalee moom mokkal ñaanal ko nga yeewi ko soo ko yeewee nga ne nga ne ko foo jublu yàlla na fi yiw yàlla jublu euh, mu doon li nga xam ni patron yi aussi dee leen koy faral di def seen ay apprenti dee leen koy faral di def seen ay ouvrier parce que ñaan boobu nga leen di ñaanal. day am impact ci sen carrière ñaan bobu ngeen kay ñaanal da leen ni da leen ni defar ñaan bobu ngeen ni ñaanal da fay gëna euh est ce que mën nga ñoo wax euh, depuis kañ nga am sa atelier bop di demal sa bop avant avant avant may am atelier bi da na job ci si jeneen place dal wa job ci jeneen place way waaye place bi ma ma ma ngay sos sos en 19 dal la la sos place bi en euh, octobre 2019. nee na octobre 2019 le sos place bi kon place bi place bu bees la place la bi nga xamné place bu yàññi la après sama cameraman bu jantal cameraman bi dina ñëw jëla leen décor yi nga xamné mom le mo moo def si place am ak euh, yenn ki nga xamné ne nako fi pour gëna impressionner ay clients pour gëna euh, mettre à l'aise parce que nak place bu féké ni. kiiwul maanaam euh, décor bi ba rafetul ngeen jigal ma si wax bi nit ki bu ñëwee du am envie toog du am envie waxtaan comprendre nga du am envie sax euh, maanaam explique li nga xam moo ko fi indi dafa war a set place déjà dañ ko war a décorer peinture bu rafet table yu rafet place bu yaaññ macha allah kon moo côté boobu noonu dañ la si félicité bu baax a baax a baax. Euh, maanaam euh, beneen question mooy ba xam say début si place bi naka nga ko doon dundee ak nit yi ku ñëw gis na yaa ngi daaj euh, yaa ngi peinture maanaam naka la meloon si yow instant yooyu noonu. maanaam au au au. place bi voilà si place bi daal waaw au début place moom. Mhm. benn kii la woon daal machine la woon mooy mooy bii nii. ndeysaan. benn la woon benn la woon place boobu kii la woon ngi mu ngi xam nga. doli stand yalla rek wa moy dor mom di e dama dag dagé souf léegi may may may may dag ci ci kaw table la dag léegi au au debi mom mam ñu bëri mom naan ki mbaa mën na lu muy def wala wala mënul lu muy def mam tànk dugo ci mom do do do do ah, xam man ko bëgg xam nak mën nga wala mëno xol sama yëre bi maa ngi ni maa ngi ni li ndaanan rek moo ko mën ñaw maa ngi nii kon amul li nga xam ne dinañ ko fi nekk di xel ñaar wala di laajte ndaanaan baa ngi nii moom la xale baa ngi nii lu gaa yëpp di wër moo nekk nii ndig moo franchement damay ñaw lu rafet la euh, nga ne début bi métti woon na trop que si suuf nga doon lal pour dagg tey yaa ngi ñëw yor nga taabal que benn machine nga yoroon muy bii nii nga xam naa bi moom fonk nga ko moom bi moy patrimoine bi non lay dewe nga dem ba am ñett comprendre nga nga dem ba am ñetti machine di liggéey ci kaw table di dag muy rafet di passer muy talé kon sante yalla dina ñew kon santat wayjur yi dina ñew comprendre nga kon ngëm ngëm bi diko gëna yok tamit dina dina ñew voilà machallah rabbi légui tay nit yi yan yan wax yan témoignage nit yi doom def ci place bu muy doga commencer maanaam maanaam muy doog commencé moom mm-hmm. maanaam muy doog commencé ah, amoon amoon nañu maanaam lépp lépp loo def daal maam day am ñu ñuy critiquer. Mm-hmm. am am am ñu am ñu ñu ñu defar. ñuy encouragé mooy. waaw maanaam ñoo xam ne ñoo lay ñaax. Mm-hmm. maanaam ñu ñu ñu ñu ñoo ngi maanaam maanaam booy booy dem ci kanam bu bu lekk. création daal mooy aussi gannaaw loo nekk maanaam man daal su may dem xool man ci kanam ma du ma xool ñi ñi ñi ñi wax rafet daal. maanaam man man sama gëm-gëm lay def ak sama xel si lu si lu ma may daal laay def quoi ab ab yokkute daal. macha allah macha allah loolu moom tamit lu am solo la encore une fois kon donc euh, nee na yenn saa yi nga am ay wax yi nga xam ne wax yu metti la. Mm. mais moom euh, fu muy xool toujours mooy si kanamam du gestu lu ko lu koy intéressé leen donc la mooy. beneen question bi mooy naka ngay dundee ak say euh, moo ñu a a mu parce que am na yeneen question yu moom man daal lu ma leen ma li ma am si si xam-xam mom de bu bu ñëw seen sen sen papa yi bu leen indi fii daal ni wax ba léegi mooy am waaw maanaam parfois mu mu mun am mal entente xam nga malam mënu ñàkk ci liggéey daal waaw maanaam da da leen teg ci yoon di de cadre daal parfois daal nga nga tàngal waaw xam nga waaw mais si la bokk tàngal si la bokk tey nga xale moom mooy bëgg def si boppam dara foo ngay dóor yenn saa comprendre mhm. loolu moom tamit lu am la Euh, est-ce que métier hmm. am na avantage. carrément si. métier tailleur am na avantage. yan ci koo xam ne du du du du foo. Mhm. maanaam xam ne caaxaan tax tax koo jóg. Mhm. aw liggéey moo la tax a jóg nga liggéey mais boo toppee sa sa sa sa yi moom doo doo ne. boo toppee ji <laughs> ah, yow boo nee na boo toppee sa ndey doo dem. waaw maanaam yaay booy. waaw yaay booy waaw. ah waaw mais yaay booy nag tamit ah waaw baax na bàyyi ma noppi man man maa ngi kii noppi. non maanaam maanaam. garaaw moom baax na incha allah. non si maanaam cadre boo xam ne. maanaam du cadre boo xam ne maanaam soo soo amee rek dañ topp nag. waaw non. Sénégal moom noonu la boo commencé am benn cent mille wala benn deux cent mille. commencé suuf suuf suuf suuf. mais mais loolu maanaam kañ kañ ngay. nga nga nga nga tabax. moo jaaxal yëpp. maanaam soo soo soo amee nga ko sa sa ndey toog. sa waay de waaw léegi léegi sa sa place kañ ko koy fay. ah ma jaaxal de. sa machine bi su su su paanee su su su paanaamee fooy fooy jëlee xaalis. moo ma jaaxal. kon doc euh, gars yi ñu leen gën a yokk jom. Mhm. gën a yokk fulla gën a yokk fayda. liggéey ak foo mënta am. Mhm. Euh, benn cinq ans li ngay sacrifié wu pour mën a dajal li nga mën a defaraat sa avenir mhm. loolu métti wu yomb na trop gën a seere seen tuur te xam ne dara yomb euh, bi nga xam moom la ñu tëjee. mooy question boo xam ne ñu koy résumé ensemble. est-ce que yow amoon na beneen métier boo daan def bu dul tailleur te nga bëggoon ko. trois hmm. est-ce que euh, métier boobu na nga xam ne hmm. bëggoon nga ko. Hmm. lan moo tax antu ñu dem si premier kii yi laaj bi maanaam ba xam tailleur say doom dañ leen doon leen leen obligé pour ñu ñëw. samay doom. incha allah rabbi. bu bu bu ci laa yaay ndey. ah moom nee na ay doomam bëgg nañu ñëw. kon donc métier bi nekk na loo xam ne fu nekk si moom quoi mm. euh, macha allah. Mm. bëriwul ñi nga xam ne dañ koo def. Mm. parce que nga gis ay militaires yi nga xam ne ñoom non samay doom duñ nekk militaire. non dañu doon leneen. mais moom na métier bu mu nekk. moom la ay doom bu beneen ba mooy ba euh, xam amoon na beneen métier boobu bëggoon bu dul euh, tailleur. man au naa doon kii chauffeur ma ne ma toog xalaat mm-hmm. ma ne booy gars yi du ma leen gisee nii doyuma. salaatu man xam nga xam nga yàlla moom lu su su la bind moom mooy mooy neex salaatu moom xalaat toogaat xalaatal ma ma a gëm sama bopp teel a xam sama bopp ma ne ma ma am difficulté ba ñëw fi fii town fii mooy ñëw Dakar xam nga départ moom day métti ak si bi ba dama tabax. Mhm. ba ba léegi nii maa ngi tabax tabax sax moom ko jox ma def. dégg nga waaw. kon naam douze métier la. <laughs> ngi tabax. waaw bëggoon na nekk chauffeur. Eh, xool naa gis arrangé wu ko. Mhm. mu mujjee dugg si eh, tailleur. Eh, lii moo nekkoon seen émission Diougal Fight. donc ni ma ko waxee émission bi nga xam ne day boole. émission bi nga xam ne day yee li nga xam ne mooy nelaw si bérébu liggéeyukaay yi. parce que tey témoignage bi nga xam ne am nañ ko fii si si si si place su tailleur bii di dëkk si cité comico euh, Bambilor ñu ngi si série A yi doon ndaanaan doon koo xam ne ku baax ku yiw ku yaatu taalibe Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam li muy àndal gëm liggéeyam franchement euh, di dimbale ay ay ay ay kii ay apprenté aussi parce que yàgg naa fee gis ni ñu doxalante doxalee ak ñoom franchement mu nekk nit ki nga ku war a jàppale la lu war a gëstu la te ki nga xam ne war nañ ko euh, dimbali tamit si yenn affaire yu bëri kon donc c'était votre émission Jubal Saay ak Mao The Voice Mao votre artiste kon moo kon ñu noonu ba kañ xam naa bopp bi bi say ah, ah. non looy wax zone 7 ah zone 7 maanaam maanaam maanaam ñoom daal mooy deuxième fois ñu def émission ak ñoom. waay maanaam ca kaw ci kanam. ca kaw ci kanam maanaam zone 7. yàlla doon ay ay télé. amiin amiin amiin maanaam bépp bépp bépp bépp dëkk boo dem. ñu fay ñu tudd zone 7. incha allah di ñaanal bàyyi bàyyi ab Abdoulaye mii. Abdoulaye yal na fi yàgg te wér. amiin amiin amiin yal na fi yàgg te wér. amiin amiin amiin yal na fi yàgg te wér. amiin amiin amiin ak wala wala ah ah. merci beaucoup. fekkee ne ñëw nañ si place bi. Euh, dañu continuer xool ay témoignages yeneen nit laaj ko si euh, ki nga xam ne moom la ñu invité man façon nit la ba xam ku baax la ba xam ku yaatu la ba xam ku yaru la mooy témoignage yi nga xam nit du ko du ko du ko fekkee ñun na ñu ngi toog ak Afia doon xaritu yàgg na ak moom te euh, franchement secret di sen li ngeen di def parce que lii da doon loo xam lu rafet la quoi donte tamit dugg di cootu nit ñi seen liggéey ak Sénégal nu mu demee moom tamit dëgëraay bi léegi suñu wërëm góor yàlla foo lañ nit di xare rek yoon na ñuy teg si dara di di leen